Bienvenue sur Salam Vision. وبعد مثل اللات ثم العزى وكل عابد لها سيخزى إليك أنزل كتاب مرسل من الإله وله ترتل سصب بنين بدي بقرأ وأنت أمي لا تقرأ القرآن اقرأ باسمي baha bika ilahu kulli umma min nuurikum aadamu summa hawa jazal ilahu amina min waali Sénégal dal leen ak jàmm seen émission Jojo et ses marabouts ah amati naa gan gan goo xam ni comme ni ma ko daan waxee rek ngir sénégalais yi la waaye laata ma koy présenté damay def comme ni ma ko daan defee di baalu àq di baal ñëpp àq di ziar di wax ne àq dafa sew man ñemewuma ko kon képp ko nga xam ne amal naa la àq te yëguma ko maa ngi lay ñaan nga baal ma te xam ne baal naa ñëpp àq man tamit Sénégal gàcce nga laa ma ñun suñu réew mii gàcce nga laa ma ñun réew jàmm la rien que la un bien petit mot mais qui contient de choses jàmm fu mu amul dara xaju fa jàmm fu mu amul développement du musa am kon nag ngalla jàmm ji nekk suñu réew nañ ko sauvegarder jàpp ko suñu fukki loxo ak juróom Afrique et ses mystères, Sénégal et ses secrets, le Sénégal et ses marabouts ci ñoom maam la woon ba ci ñun ñi di ay sët kon tey Jojo boo amee émission bu tudd Jojo et ses mara tegguwuma benn yoon yoon bi damay dekkal cosaan di dellu si lu fi ñoom maam bàyyi woon kon nag gan gi maam tey dafa tombe sax ndax ku ne xam na ne mois de mars weeru jigéen ñi la ku ne xam ne man Jojo jigéen ñee sama xarit ndax nag bu fekkee jigéen la yàllaa ko njëkk a suturaal yàllaa ko njëkk a teral waxuma la ak ñun ñi du góor ñi te ku ne xam ne ne derrière chaque grand homme il y toujours une grande dame et c'est la femme qui sait si bien mettre le voile de la discrétion sur nos erreurs ñun ñii di góor ñi kon nag soo amee gan goo xam ni jigéen la muy soxna Mariama Sy taalibi sëñ Babacar si bu mag bi damay kontaan si dalal ak jàmm ñëw nga sa kër càmmiñ ñëw nga sa kër góor ñëw nga sa kër fans comme ni nga ko waxee da ngay dal ak jàmm nga nuyoo ak sénégalais ñu doog a dugg ci waxtaan wi jërëjëf bismillahi rahmaani rahim ange billahi minan sheytaani rajim euh, jërëjëf euh, Zozo ndax damay rafetlu invitation bi di lay kontaane ndax man dama la yàgg bëgg. ndeysaan dama la yàgg bëgg dama doon seetaan sa théâtre mm. ndax suñu liggéey bi dafa metti mm. dafa nekk milieu boo xam ne dafa metti ci góor waxuma la ak ci jigéen. Mm-hmm. te bu ñu xoolee jigéen ak faj day metti mm. saa yu ma stressé yow mbala bu ma liggéey ba sonn yow laay seetaan. ndeysaan barki Serigne Babacar si mi sama yaakaar. Euh, dama la sopp dama la yàgg bëgg yàgg di lay seetaan. alhamdulilah lépp loo xamante ne tawat la woon nekk sama yaram yaa ko dindi. ma wax la ah, ko tey sant yàlla ndaxte da mu metti lool ma la nga faj rab affaire day ñëwaat ci yow. Hmm. ma seetaan la li nekkoon ci yow yëpp daal li nekkoon ci man yëpp daal di soulager. kon nag maa la bëgg piir di lay ñaanal jàmm sutura di ñaan yàlla na nga fi yàgg loolu te wér ndaxte ne naa ragal péete day xañe wërsëg te maa la bëgg te duma ci daw lenn may nuyu nag sénégalais ak sénégalais yi mhm. ndaxte lu yàgg ci njaw doon njaw mhm. te ñoom ñoo ñu dooleel ñoom ñoo ma bëgg mhm. ñoom ñoo ma bëgg ñoo ma kàttanal ndax Jojo ku nekk ci at plus de dix ans. Mm. Eh, di ci def chiffre d'affaires sant yàlla. Mm-hmm. di ci it prouvé sant mm. yàlla mm. te ñoom ñoo ma dooleel amaanaa su fekkoon dama doon def émission di leen di woo te ñëwuñu mm. te it di wanuma leen qualité kon dem nañ bu yàgg dëgg la nit loo nekk ren ba déwén continuer di koy def yaakaar naa ne sant yàlla nga ca ndax lépp lu may def rek yàlla dugal na ca loxoom ndaxte naa ñun fiñ dëkkoon fiñ nekkoon rek lañ ne toxawuñu mm-hmm. changé wuñ dëkkuwaay ndax li ñuy def dañ koo mën ñu doon it ay taalibi sëñ Babacar jël wér di cheikh kon lépp lu ñuy def rek dañ koy teg ci sariya teg ko ci diine ñun defuñu dara yi loo xamante ne méngawul ak diine méngawul ak sariya kon sama soppe maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di lay kontaane gëm li ngay wax gëm ne doxoo dara ci ay caaxaan moo waral nga toog fii tey ndax na kër gi ku dul ndaanaan doo fi dugg ku mën a nax ñeneen ñi ñun kenn mënuñoo nax ku yàpp sénégalais yi ñun yàbbuñu sénégalais yi bay invité koo xam ne du ndaanaan muy toog fii di wax naka si dul noonu ñun duñ liggéeyee noonu kon fees nga dellu sa place toog nga fi nga war a toog tey waaye nag ginnaaw émission bi guddul dañuy dugg rek ci waxtaan wi directement ndax lu ñu war a waxtaane dafa bari maa la xool seetlu la seetantal la lacce la enquête la ba sa koñ ba ci say xarit ba ci say xarit yu ngay àndal guddeeg bëccëg wala ñu lay fréquenté ñu wax ma yaay kan ma woo la fii kon maa la woo ah waaye daa mel ne sama kër gi lii ay jinne dañ fee ñëw tey gis naa fi ay ndombo ay kook ay ay ay layu lu ne gis naa ko fi donc fu ñu ma njëkkee ak yow mooy ci seet seet da koy def lan mooy seet waaw Jojo dañuy sant yàlla sama soppe di julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam ndax nee naa seet dañ koo doon te dañoo ñëw suñu ëttu kër maam fekk fa seet kon lu ñu doonu la kon boo ñu laajee ci milieu seet dañ ci sawar lool pour tontu la mhm. ndaxte nee naa seet mooy nit ki jaaxle nga wan ko yoon nit ki nga xam ne dafa gëlëm ba xamatul fu muy dem nga teg ko ci yoon mhm. loolooy seet nit ki nga xam mhm. dafa réer ak nit ki nga xamante ne maanaam dafa nekk ci àddinaam ñu koy yàqal yoonam nga seetal ko génne loo ko ay sarax mu génnee ay saraxam daal di daal di delluwaat mel ni meloon ndaxte nee naa seet li muy def ci nit moo bari ndaxte dafay mel nit ki na ma nga seetal ko li nekkoon ci moom daal di dañ hmm. bala nit ki xiif bëgg a lekk soxla ku ko jox mu lekk lool boo ko jox boo ko seetalee day mel ni comme yow hmm. nit ki nga xamante da nga jixaat daal man jixaat laa tuddee seet dëgg la ndaxte nit daf ma naan soxna Mariama depuis ñaari fan maa ngi lay woo wax bay jooy ma xam ne kon la muy wax kon seet kon am na loo xamante ne da koy def ci nit day mel ne malaat bi feebar rek nga nga wax ko lii mooy sa feebar hmm. day xam ne lii mooy feebaram mu topp traitement am kon looloy seet ah, léegi d'accord léegi mën nga maa wax yan xeetu seet ñoo am waaw seet yi am bari na. waaw ndaxte gis naa ne listixaar. am na am na. Mhm. seet ci latru. ci latru maanaam seet ci papier mara def ay tomb. waaw dañ ci seet. waaw loolu am na. seet ci ndox am na. seet ci suuf am na. Mhm. seet ci wàllu ramli am na kon façon seet yi bari na. ñun dañuy seet bay seet ci bale ak ndoxu potit. yow yëpp da nga koy def waa dama koy def. waaw kay mhm. léegi nag da nga fiy toogal place ñiy seet ñëpp. invité naa fi sa sa sa sa Salbe waaye convaincre ma ci li mu wax ci seet pettaaw parce que ba ma ko ko waxee nanguwul sax ne seet dafa araam convaincre na ma nag en tant que Selbé en tant que seetkat ndaanaan la mhm. waaye nu mu waroon défendre boppam ci yéen ñii di seet leneen lu dul alxuraan man damaa bëgg ngeen convaincre ma lan moo tax ngeen koy def parce que tey bu fekkente ne alxuraan dafa xaraamal seet wax fii nga toog ay ustaas ñëw nañ fi seetaan naa ko am na ustaas yu toog ne ma seet benn ci la ci yàlla nangu muy listixaar yeneen yi ci des yëpp dafa xaraam am na keneen ku fi toog ne muy list listixaar muy lu mënta doon seet dafa xaraam bu xaraamul woon boo demee tey ci sëñ Murtada Mbàkke mbaa nga dem ci euh, Tiwaawan dañ lay seetaan ban kilifa diina nga fi mos a dem mu seetal la amul tàllal sa loxo ma ñaanal la lay wax. Mhm. am na ku toog fi wax ko fi. waaye daal li ñuy jàpp daal ba jàpp mooy li saxaar moo dagan yeneen yi daganul waaye xam nañ ne daal pettaaw ak suuf ak leket ak këll et tout nee nañu lislaam daf ko xaraamal dafa xaraam lan nga ma mën a wax ci loolu. waaw Jojo. wax laaj nga question bu am solo ndax nit ñi dañoo xaw a dañoo xaw a gëlëm ci wàllu seet. Hmm. kon ñun ñii seetkat yi dañ leen war a gindi. Hmm. mais seet ci pettaaw dafa xaraam. waaw mais leneen lu méngawul ak pettaaw boo ko seetee dagan na seet ci ndox dagan na ndax dangay tiim ndox mi mu mel ni image nit ki muy ñëw ci yow kon loolu mbirum yàlla la uh-huh. waaw ngay seet ci wàllu ramli boo defee tomb da indil chiffre nit ki nga xaw li mooy chiffre am lii mooy saraxam te bu ko defee gindeeku uh-huh. kon ñiy wax seet dafa haram amaana alxuraan bind na ko ndax nee seet ci listixaar dagan na uh-huh. te ñun dañuy seet ci wàllu ramli di seet ci listixaar kon ñun buñ ne seet dafa haram te alxuraan bi wane na li listixaar araamul kon ba tey problème day posé waat mais pettaaw dafa xaraam man dama ci doon seet mais dama ko bàyyi mhm. ndax wax naa la léegi dama jël wér di Cheikh Ahmed Tidiane mhm. te méngoowul ak seet ci pettaaw te dem naa ba ci sama sëriñ laaj mu ne ma seet araamul ci li ngay yëngatu waaw man sama sëriñ moo la ko wax waaw fi ma joxe sama njébbal waaw moo ma ne bu fekkee dangay seet ci loo xamante ne méngoowul ak pettaaw seetoo ci pettaaw ma ne ko déedéet seetoo ci xottu gerte ma ne ko dama ko daan seet mu ne ma bàyyi ko dee ma ci suuf dee ma seetal ci ndox wàllu ram di dama ci seet kon yow. sa sëriñ moo la jox ndigal. moo ma jox ndigal waaw. pettaaw bi daal moo xaraam. ak mhm, ak mais yeneen yu si des xam nga fii ngay waxee ci télé ngay waxee nag. dëgg la loolu tax ma am fi toog ko. kay parce que après dina am yeneen invité yu fi toog. Mhm, mhm. boo fi waxee loo xam ne ànduñ ci dañ ne la soxna soxna soxna Mariama mi fi ñëwoon la mu wax abul. dëgg la moo tax may bëgg rek ngay wax loo xam ni. dañ ko mën dañ ko mën a défendre bu fa keneen ñëwee. nangu nga def pettaaw. moo xaraam dafa xaraam waaye yeneen yu ci des yëpp dagan na waaw ndax foo xam ne boo fa demee yàlla suñu borom nee na boo demee ci pettaawkat ñeent fukki guddi boo jullee du ko du ko nangu kon loolu kon xaraam na dafa xaraam mais am na ñeneen ñu naan ñu lii dafa xaraam yeneen yi ndox meeg mhm. gerte yeeg am na ñuy wax dafa xaraam mi li tax nit di ci seet ba mën gis soxlay nit ki te yow yow da day mel ne comme loo xamante ne dañ la koy dañ la koy dee ah. kon loolu buñ ne xaraam na yàlla ñu ko jox ah. kon bu ñu dofloo doy na waar daf doy na waar ndax xool ci wàllu kii di xam soxlay jaam bi waaw ci wàllu ram li kon zozo loolu yàllaa ko maye waaw léegi léegi waaw d'accord mais mhm. mais boo tiimee ndox nii lan la dafa am looy tari pour li nga pour ngay gis wala day ñëw naturellement rek ci yow wala da nga ànd ginne ju lay dee wala nan la lan la lan seet bi lan la mhm. nga tiim ndox baa nga tiim suuf kurus dañ ci seet pourtant bëgg xam waaw mhm. lan lan nan nga koy xamee yow nan ngay xamee dëgg du neex ndax ànd nañu ak ay jinne mais lii ñëw ci ndox ñu xam nañ ne mayu yàlla la te man bu ma tiimee ndox day mel ni dafa am luy dee sama nopp wokkali wokkali te su ma ko waxee jinne bi la un ndax man damay seet live en direct waaw te yaakaar naa bu fekkee li doon def ne antuwul mbala nekk lu dëgg kon duñ ci toog ay at di koy def te yàlla dañu ci may nag kuñ seetal mu ne dëgg la kon loolu mayu yàlla la xam naa ne koo seetal dëgg la mhm. loolu xam naa ko mhm. nee naa la moo tax nga ñëw fii tey mhm. nan ngay gisee lan moo lay gis loo lool laa bëgg a laaj. waaw man dama ànd ak jinne te looloo may dee may wax. Ah. man dama am jëkkëru jinne moo may dee may wax. Eh? waaw. am nga jëkkër nii normal nit nii. waaw waaw am naa normal am naa bu jinne. jinne bi du dóor ku normal ki di ah ki normal ki itam dafa am lu mu àndal ndax moom tam sëriñ la. ah waaw. am ngeen njaboot. waaw benn <laughs> am na benn tuut tànk. benn ngeen am. yéex nañ koo am nag mais sant rek. ah jinne gi dafa xeex ba sonn. Mhm, dafa xeex ba sonn. sa waa jàmbaar la. Mhm, jàmbaar la ndax man yor ma yombul dama dis gan moo tax yor ma yombul. Mhm. waa léegi lii laal la lii. yii sama cameraman yi damaa bëgg ngeen se insérer ma lii. mu wax ma wa ñeme naa ko war naa ko bu naa ko tey. waaw bu la neexee nga abal ma amul benn amul dara lii. ah lan lañ ko. léemu naa ko ba pare dara du ci kii zozo <laughs> sama soppi. <laughs> day ba jinne ji mer rek. ok d' accord mais lii carte la. waaw ci laay seet. da ngay seet ci carte. waaw ndax dama am ay client tubaab ak ñàkk nasaraan ci laa laa ndi di xoolal ndax du ñu ay jullit. donc après il faut nga wax ma nan ngay seetee ci carte bi. waxuma nga seetal ma nag. waaw mais danga may wax nan ngay seetee ci carte yow. ci chiffre rek laa koy xoole <laughs> ah. nga teg foofu sa baaraam. d' euh, euh, lii. waaw loolu ay fas la jigéen ju mënul am doom comme jigéen joo xam dafa sëy lu yàgg mënul am jaboot dafa taxaw boo ko takkalee mu am bu ma ko ko takkalee mu taxaw dinañ ñëw ci loolu lii aussi kon lii ay fajukaay la bokkul ak dara ceet mi waaw lii noonu yii ay fajukaay ay ndoom ba yoo xam ne ku nekk bitim réew bëgg ay affaire ak yooyu rek kon après nga won ma yii wax nga expliqué ko kon daal fii daal lu jëm ci xeetu seet mhm. laa ilaah lii la mhm. lii moo fi jëm xeetu waaw loolu rek a fi xaj moo tax moom rek laa fi indi béjjin yi ay béjjinu luñu waaw béjjin yi maanaam koo xam ne dafa ibbi place bëgg place bi dox ak koo xamante ne da ngay jaay te wajaarle ok dinañ ci ñëw mais béjjën yi béjjënu lan la waa béjjën yi am na béjjënu xar am na béjjënu bëy am na béjjënu nag d'accord d'accord xool bi day neex de allahu akbar tamit amul benn danger déedéet amul danger déedéet lii pour seet la déedéet loolu du pour seet loolu noonu dimb la doomu dimb pour ah. chauffeur yi nga xamante ne accident yi dafa bari ak xale yu góor yi yor cag-cag yi d'accord koy jox waaw loolu noonu ah. <laughs> ci samay xàmb laa ko jëlee zozo ku ñuy sang rek ci <laughs> amul danger seet ah, ce que kon léegi mhm. booy doom seet ci carte mhm. koo xam ne nekku fi nan nga koy seetalee ci carte yi nan ngay def waa Zozo ni ñu xoolee ci carte yomb na mhm. ndaxte ne naa carte damay laaj ci sa tur ma am lu ma ci wax ndax am na yoo xam ne ay jat la bu ma amee lu ma ci wax après ma daal di teg sa bi mu tombeel ci la ñuy calcul daal di lay seetal mu génne la résultat bi nga xam ne moom nga soxla ci nit ki. seet bi da ngay da ngay seet après digal ko saraxam mu waaw am na wala da ngay seet di sangat wala di nga seet joxe gàllaaj da ngay faj en même temps en même temps am ñoo xam ne Zozo jarul nga leen di naan def leen ni ñëw leen ma sangat leen nit ki ci ni ñu koy seetalee ci lay mm. xam ndax gis na gis nga ko mbala gisoo ko mm. ndaxte nit ki li ngay yor bu fekkente ne qualité la da koy doy mu ñëw mu ñàkk ko doy mu toog nda am ñoo xam ne jarul ñuy sangatu jarul ñuy def ay bagage ndaxte da nga leen di seetal gis leen ne génne leen sarax bi bale trois jours ñu génne ko gis résultat d'accord mm-hmm. da ngaa am jinne mm-hmm. jinne ak rab benn la wala du benn jinne ak rab ñoo bokki maam mais du benn ah. mm. jinne ëpp doole rab waaw moo ëpp doole rab. ok kon yow rab nit bu amee rab. boo ko xoolee seetal ko di nga gis na kii am na rab. waaw nit bu amee rab bu ma ko téyee rek dañ naan ma lii fii la rab bi nekk ak lii la koy def. su ma ko tegee loxo rek dañ naan ma rab bi fii la nekk ci moom ak lii la koy def boo ko defalee li mu wër. ah dañ koy wax. dañ ma koy wax waaw bu ma ko téyee rek. dafa am bagage da ngay dama koy faj. ba mu génn ba bàyyi nit ki. ba bàyyi nit ki te du yàgg sax. dama bàyyi nit ki dama lay ah? jox ay sangat nga sangoo ko samay xàmb ma suur la nga dem waaw d'accord d'accord mais mais léegi mhm. rab la moo tax muy dugg doomu aadama yi waaw zozo comme yow mii nga xam ne yow jinne dugg na la lan la lan la lan moo tax mu dugg la lan waaw li tax rab di dugg nit ñi nit ñi léegi seen comportement ak seen façon solin ak seen façon heure bi ñuy génn loolu tax rab léegi dugg ñëpp daanaka looloo tax rab bi dugg la woon kon yow kan man déedéet loolu taxul rab bi dugg ma ndax rab bi bi ma nekkee xale ba tey la ma dugg ni ma nekkee xale ba tey waaw kon daal à travers comportement yi loolu moo tax daal rab yi di dugg doomu aadama nu ñu leen neexee nii waaw ndax xale jigéen ñi am na ñoo xam ne dañoo wow bët am na ñoo xam ne ni ñuy solo baaxul am na ñoo xam ne fu leen neex la ñuy lekkee lu leen neex la ñuy sol looloo tax rab dalay yomb a dugg ndax dalay sopp waaw ah, mais am na ñu nga xam tamit rab da leen dugg nii rek parce que dañoo rafet wala naturellement naa yow moom rafet tax rab bi dugg la yow. ndeysaan yow bii <laughs> kaar macha allah. ah kaar allah nga baal ma rek xam naa ne. Ah, ah borom borom am nga borom kër waaye tamit teewul ñun ñu ñu wax suñu suñu xalaat. dëgg la looloo tax yow rab bi dugg la wala rab bu nekkoon say maam la parce que am na ñu xam ne souvent nee nañ ma ay xàmb la ñuy am. maam yi bàyyi leen ko fi xamb yi ñëw toxu ci doom yi toxu ci sët yi. Mm-hmm. lan la man sama maam moo yoroon ay xàmb léegi demul ci ay doomam ci man mii la ñëw man mii sëtam ah. damaa gën a tuuti ci ay sëtam mais ci man la ñëw ndax dama ko daan gént lu bari taxaw ma ko ma ko daan gis ci gént lu bari mu naan ma jëlal lii soo ko jëlee noppaliku boo ko jëlul ma dofloo la te ma dofloowee ba ma fajoo ba dama dem foofu ñu ne ma moom mu lay tax ñu bàyyi la dangaa dofoon waaw tuur naa def naa lu ne mais wéru ma dof bi na la dikkee dama jékki-jékki rek mel ni comme dafa luy taxaw sama kanam am luy dox sama yaram fu ma sama yaay yóbbu ñu ne ko kii dafa lu mu àndal sama yaay ni kii amul lu muy àndal ndax ñun lii bokkul ci ñun waaw bi ñu joxee tegtal sama ëttu kër maam Mbooro bi ma fa demee na ci lañ ne lii la fi sa maam te lii la la dénk bu fekkee jël nga ko nga defee ko ni defee ko ni dina la may jàmm te boobu léegi 2000 2000 2013 ba tey. waaw ma ko defee la ma bàyyi. amatoo benn crise folie. crise amatuma benn crise. bi nga jëlee lenge yi daal commencé def li mu lay sant. Mm-hmm. kon yow fu mu toll nii mën naa ne yow da ngaa dépendre ci rab kon moo lay conditionné. non conditionné wu ma ndax dem nañ ba nga xamante ne xam naa li mu bëgg ma koy def te teewul dinaa dund sama dund te yàqalatuma dara. lan la bëgg moom. Euh, ma koy génneel ay sarax te it may faj jaami yàlla yi di koy jaamoo yàlla. mais mais mais sarax yi nga koy génne parce que souvent nee nañu rab saraxu soow lay laaj wala sareetu deret wala te loolu dafa xaraam tamit. Mm-hmm. ba yaa ngi ci bàyyi xel wala rab yi du du rab yëppay laaj deret wala soow. wala non am na rab yoo xamante ne ay patron lañu dañuy laaj lu cher nga génne ay centaine de basin. wala nga génne ay centre de piste wala nga génne ay parfum wala nga génne ah, ay jàllaab dañoo fuuy de dañoo fuuy <laughs> ñooñu <laughs> na ma yàlla baal ay borom rab kenn yooyu la ñuy laaj ndax dañuy laaj yoo xamante ne da koy génne am jàmm ay cuuraay yu cher mm-hmm. parfum yu cher yooyu la ay rab bëgg da dañoo bëgg lu baax comme nit ki d'accord mm-hmm. kon tey euh, euh, impuissance mm-hmm. maanaam góor gu nga xam ni dafa tële mën koo fajew damay faj impuissance te ñi ma ci faj ñëpp am naa ci résultat bi Jojo non impuissance boo xam ne judduwaale la wala boo demee dafa dem ba ci digg bi mu dab la wala lan non judduwaale mënuma koo faj mais ki nga xam ne daf la dap moom boo ñëwee ñu fajala ko ci deux jours mu tàkkali koog yow mais rab day def loolu day da koy def bu baax nga yegg sa jabar gaaw a daanu waaw waaw da koy def waaw déet waay waaw waaw rab day def loolu mbala nga tiim jigéen rek yegg da koy def maar de taal yi da koy def yàlla ñu yàlla musal ci rabam bon amin amin li muy def bari na ba wala wala mu tëyee awra awra góor bi du mën du mënati dara. gis ko bëgg mbala koo xemmeem boo ko tiimee doo nekk góor rab da koy def. rab amul lu mu munul. te yow loolu yëpp booy seet gis ne kii rab. bu ñëwee bu ma jàkkaarloo ne ko jàkk ba suñu ñeenti bët tasee ko lii ak lii moo dal mu ne ma waaw ma ne ko lii laa koy fajee mu ne ma wax bu ma ko ko fajalee mu deñ dootu soxlaatuma muy ñëw ndax wér na. impuissance beeg yëpp. lépp impuissance beeg rab beeg keneen ku leneen jàpp bu ma jàkkaarloo dama naan jàkk lii la ak fii la la dalee ak nii la la dalee rek yàlla may nañu loolu. yow daan nga dem ci tele yi. Euh, daan naa dem ci télé yi mais bariwul. mais dafa war a bari. dafa bariwul xam nga xam nga xam nga yéen. da ngeen am mission bu doy waar. mission bu ngeen am parce que dégg naa sax nga am xam-xam jàngale ko sax bés boo génnee àdduna dalay jëriñ fa nga nekk. nga am xam-xam tamit jaamu ci yàlla tamit. da ci am ay tayaaba. bu baax. tey góor ngóor a tax ñu naan góor kon góor boo dee ba sa ngóor dem yow nga fexe ba mu récupéré waat ngóoram mais yow danga war di génn télé bi ñun ñu xam fan ngay nekk di la mën a fekk si ngay mën a dimbali doomu aadama yi ndeysaan mhm, dëgg parce que léegi léegi ne nga ma jigéen ju ok jigéen bu mënul ëmb aussi da nga da koy ñaan mu am doom dama lay faj dama lay faj waaw mais xaaral waaw mais d'accord mhm. mais tey bu fekkente ne xam nga am na tey jigéen yu nga xam ñu am doom parce que euh, rab boo leen tëyee. Mm-hmm. d'accord daa nga mën ko faj. Mm-hmm. mais jigéen boo xam ne mun na am doom parce que dafa feebar ah fibro wala yeneen ak yeneen yeneen ak loolu yëpp da nga koy faj. fibrom dama koy seeyal Jojo boo ko amee dafa am ay tee yu ma lay jox yoo xam da nga koy naan mu seey jeex danga koy tuur ndox ba mu jeex mala nga indisposé mu ànd ak moom dama koy faj. koo xam ne kist da koo jàpp dama koy faj jarul ñu lay opéré boo ko weddee bu nit demee bañ bëgg ko opéré bu ñëwee ma faj ko ci gratuite. nga ne bu nit demee bañ koy waaj a opéré opéré bu ñëwee ma faj ko mu daal di seey mu tàkkali kook moom mi am na ñoo xam ne seeni bos day màgg faaw nga dindi ko waxuma ñooñu ñi nga xam ne da ngay dem bay saigné mbala fibrome bi dem na ba sax karaw kooku faaw mu dem hôpital ñu faj ko mais ki dem na bay réyal sa biir ngay sentir règle yi normal atul trompe yi di bousé dañ koy faj boo ma fajal la ko léegi ndomb bi lan la bii nga wax nii bu ko takkee rek day am doom déedéet fas bi fas bi ku ko takk rek day am doom waa ah? waaw ma xool fas bi waaw fas bi façon la Euh, bii nii jigéen joo xamante ne kiiwul bu ko takkee day am doom bii nag tilimul la tudd ku mënul am jëkkër buñ ko ko takkalee bala muy tilim nga am jëkkër maa ko wax. balaa muy. am tilim nga am jëkkër. luy tilim. balay fas bi di tilim nga am jëkkër. <laughs> ay waay daw Samba Saliou xaaral maa ngi ñëw ci sa question boobu te laa doon ñëw gars ñu may dégg lu neex. bii. <laughs> <laughs> ku munta am doom. bu ma ko ko takkalee maa koy takkal nag. waaw ak foo mën di nekk da ngay ñëw ñu takkal la ko boo ko takkee. bu weer ba jotee nga jël te boo jëlee dama lay takkal loo xam ne doo avorté booy am doom kenn la opéré tamit nay leer ndax fii lañ ko waxee. ok mhm. am nga la tudd fas bi. tilimul. tilimul la tudd. jigéen boo ko takkal ku mënta doon balaa moo tilimu am jëkkër. nga am jëkkër waaw mhm, nga am jëkkër. jàmbat leen nag mu ngi ndomba bi ku ko takk. góor bu ko xaaral maa ngi ñëw ci biir ba dañu ñëw ci biir ba pare xaaral <laughs> balaa ngaa ñëw ci ndombali. <laughs> balaa nga ne bii boo ko takkal. Mhm. bala muy tilim nga am jëkkër. lii kon du mat parce que ay 15 jours dana tilim. sa non non du mat 15 jours incha allahu rabin. balaa oh, muy tilim mu am jëkkër am na ñoo xam ne dañuy dàqaat tamit nay leer. mais bu fekkee dàqe woo nga am jëkkër bala muy tilim. góor bu bëgg a am jabar. góor gu bëgg am jabar ndomba lañ lay jox boo ko takkee ndax góor ñi dañoo bari rab te seen rab daa soxor bokkul ak bii tamit déedéet bokkul kon bii su ma ko di dund déedéet ndomba laa lay jox nga takk ko ndax nga mën a am soxna zozo ma mën am jabar waaw ok léegi <laughs> maa ngi doog a am gan kontaan naa trop nga ne lii lu waaw <laughs> ndomba bi jàmbat leen ah? foo ko takk bu la neexee jàmmaarloog dëmm du la mënal dara bu la neexee jàmmaarloog saytaane du la mën jàmbat leen daal la tudd ja jàmbat leen nañ la jàmbatee nu ne mais dara du la dugg du paaka du du saytaane du dëmm du nit ku bon li karaw lan la. <laughs> karaw muus la. karaw muus bu ñuul. muus bu ñuul. waaw. Saliou nga ne lan. Mhm. karaw muus bu ñuul. moo nekk ni waaw. nga ne kii boo ko takkee. jàmbat leen dugal fu ne defal lu ne. lu ne def ko. ñu lay jàmbat mii duñ la mënal dara. du paaka du fegal du. jaar dara lañ la dul mënal zozo dara. ñeent bopp yëpp ngay tëj juróom ñett ñett yëpp bu fekkee da a nar a def dégâts tëjal juróom yëpp bu fekkee ñett yi bu fekkente naroo def dégâts takkal benn bi rek ñu di lay jàmbat duñ la mënal dara bët saytaane làmmiñ ak nit ku bon ak saay-saay dara duñ la ko mënal dagam neex na rabbi sama waaj soo naree def dégâts na nga tëj lépp nga tëj lépp bu neexee yàlla dañ lay jàmbat mais kaso du la féete ginnaaw ah bii da xam naa ne moom ah Sadio génn leen la <laughs> ah kii sama gan la waay ndombali tegal ma ko ni aada tàndaan beneen ndomb bi lan la waaw beneen ndomba bi pour ñi nga xam dañuy xëcc ndomba tànk ndax nit ñi dañoo bëgg ndomba tànk ma xool waaw nga xamante ne bii deru béy lañ ko ëwee am na ñoo xam ne dañuy bëgg doon deru béy coow dina la topp de waaw ndax bayre béy mais ànd naag kaaraange ànd naag muslaay ki nga tànk moo xam ministre la moo xam muy xëcc pour nekk euh, adjudant bala colonel bala commandant yaa xam daal looy xëccu ci ndomba tànk bu ñu la ko takkalee par force bu ko fukk doon xëccoo yaa koy jël ah. deru bëy nga ko defee. deru bëy lañ ko awee deru bëy bu xonq bu marron. mais mais lii am na alxuraan ci biir. am na alxuraan am na alxuraan am na sunguf am na poudre fetel. am pettaaw. am na poudre fetel tamit en même temps waa. après di nga ma wax njëg yi war naa seer de xanaa. <laughs> déedéet zozo ñun lépp lu ñuy def dañ ciy def dugal xéewal. wala doo wax prix bi. non jarul ñuy wax prix bi ki nga xam ne bëgg na ko bu jàkkaarloo ndax am na ñoo xam ne da nga leen di wax sax kii dañuy ragal lii dañ lii yëpp dañ koy dañ koy tëj waaw bu fekkee ne ndomba tànk nga war a jàmmaaloog sa ay soppeek say noonu koy tëj dem jàkkaarloog ñoom ñëpp naan pat bu fekkoon dañ ko doon xëccoo ñëpp ay jox la victoire ah, kii te ngaa bi Sonko wala Macky Sall dañ ko soxla de <laughs> yoon ci loolu mhm. béjjën yi waaw yi nag euh, ki nga xamante ne day jaay mu taw a jar ak ki nga xam ne dafa ibbi bi itam du dégg jaay ma jaay ma bi. bu ko wekkee ci place ba day jaral. ki nga xamante ne amul bayre amoo soppe nga def ko sa saak foo tourné nit ñi dañ lay topp. Ah. am na ñoo xam ne amuñu soppe amuñu bayre foo dugg dangay fay. dëgg la da ngay fay kenn du la bëgg kenn du la sopp am na ñoo xam ne fu ñu dugg nag yëngal dëkk ba daal di wane ginnaaw bàyyi fa réer lekk mhm, bàyyi fa coow la waaw ah, looloo tax kii bi jóg béjjanti bi léegi li la xam li nga jëlee ci xamb bi waaw li ma jëlee ci xamb yi dafa am koo xamante ne fa jóge sax doon ko faj lii xam nga dañ ci faj kortu xettaxu buy bii dafa am koo xam ne dañ ko sànni kortu moom laa demoon faj ji léegi ma faj mu des sa benn waa ma indi ko ndaxte lii dañ koy lakk am luñ ko booleel daal di koy def sotti ko ci góom gi nga xam ne dafa am góomu robaale Ah? ak ki nga xam dañ góomu robaale ak ki nga xam dañ ko sànni korto ñu ko ko defalee mu wér ndegam neex na yàlla ah. waa léegi ndono la quoi nga ne ndono la xam-xam bi waaw dama ko donn sama maam sama côté yaay sama maam bu góor la non yow yaay faj wala jinn man en fait c'est que ban waaw parce que li ngay wax ne yow da nga koy lijjanti yëpp ci réew mi ak at mii nga am nii mhm. yow la wala yaa mag say at nii waaw man maa mag samay at Zozo ndax ñi ma doonu fekkuma leen fi maam samay at ndaxte samay maam ñoo fi bàyyi xàmb yi ñu jox ma ko te li ma àndal moo ma yokk fit <laughs> may faj <laughs> macha allah. xam nga xam nga. Mhm. am na benn xale bu ma xamoon. Mhm. wax turam. damaa jékki ñu ñëw ne ma yow doo dem ci diw seetaan la. Mhm. ma ne leen da ngeen a parce que maa ko yar. xamoon naa ne nag am na lu mu àndal parce que parfois daanu. ay ay ay ay affaire ay affaire jëmm yu garaaw sax ma leen yéen da ngeen a yabaate kii dafa mën a seet maa ko yar quoi léegi pour tëñal ko ma ne waa léegi seetal ma ma ne man nga bëgg ma seetal la wala wala Ibrahima nga bëgg ma seetal la ma ne kuy Ibrahima mu ne ma mooy ki ma àndal ma ne ko dama Ibrahima seetal giñ naa ko ci alxuraan bis boobu ah ku xam Modou pousse pousse na ko wooti ni ma téléphone laaj laaj la ma génn ci néeg ba keroog maanaam kon tey xale boobu tey jinn ji mu àndaloon muy Ibrahima moomu moo koy doom defal yenn seet yu extraordinaire wala yenn yi moo tax ma lay laaj yow ndax yow yaay faj walla wala jinn bi moo ne sa ginnaaw wala lan waaw Jojo euh, man dafa am lu ñu ma loo ci seet ndax jinn ji ma àndal moo naan ma defeel lii waxeel lii mais boo dépassé say borno rek dalay sonal dalay feebarloo Ah, da lay feebarloo seen affaire yi critique na torop. waaw da lay feebarloo te danaan la fii laa bëgg nga yem ko. soo xëyee diw dina ñëw ci yow diw dina ñëw ci yow mais bu ñëwee lii ak lii ma koy faj bu ci nekk daf ma koy tegal fi mu war a tegu. waaw. moom boo la koy tegal da nga yeew gis mu teg ko. damay yeew gis mu teg ko zozo jinne boo koy neexal loo bëgg mu defal la ko. nit a gën a fort jinne waaw mais yow yow mënoo yow mënoo ànd yow mënoo ak sa saako code yow est ce que doo yenn saa yi doo jékki-jékki tamit départ nag dañoo non su ma jékki-jékki mais nga yeewu suba gis ko tegal fekk ko ba la koy tegal mm-hmm. gisuloo ko mm-hmm. da dem ba tàmm ko ndax da xam ne lii dafa bokk ci man nga nangu ko lool boo nangoo rek mu may la jàmm mais soo bañee mu sonal la uh-huh. ah, boo nangoo mu may la jàmm nga bañ mu sonal la zozo mm-hmm. ok léegi kon ay ay ay côté euh, ay côté hémorroïde ay ay ay ballonnement yu sonal doomu aadama yi ah yooyu mën nga ci dara. waa AVC dañ koy faj ndaxte fi ma ko fi ñu ma joxee xam-xam boobu sama papa dafa mosoon AVC. waaw mi koy ñu koy yóbbu fu ne ma koy yóbbu fu ne fu ma dem ñu faj ko mais du wér. ma tëdd ba guddi di sama li ma àndal ni ma def ko lii defee ko lii boo ko defee lii mu ne mu ne ma du jóg du wér sa papa app bi lay am day dee mais lii boo ko defalee dina tane mais du wér. mu ne ma képp ku am AVC de ko fajee lii mbala nga jox nit fas bii am na fas boo xam ne ku ñu ko jox doo daanu AVC. boo am tension dootu la daaneel bu fekkee ku di jàpp rek zozo wallahi boo ma woowee ma la joxee samay fas boo ko takkee doo AVC mukk jamais. mais bo léegi ah man li nga amal na ma solo démb. Mhm. invité naa fi ndaanaan lu mag. Mhm. ndax dama am xarit bu nekk Las Vegas Amérique. Mhm. boo am AVC jantal la sama gar sama grand la. bi ma ko laajee ndax mun ngaa nekk fii Sénégal faj ko def na ma déedéet. pour ma faj ko day ñëw ba fi ma nekk ndax dafa am fi ma ko war a yóbbu fa laay mën a fajee AVC bi yow tey nit mën na nekk Amérique wala nekk France wala nekk fu mu doon wax la dafa AVC nga faj fii nga toog Sénégal. dama naan la wutal ma lii nga wut ko nga wut ko ma am lu ma la yónnee nga boole koog loolu daal ndax garab boo koy jox nit faaw mu wut ci dara même bu fekkee benn xob dina ko wut teg ko ci wetam. waaw nga jox ko say bos ci bopp mu daal di koy dolli ku nekk ba Europe boo ma woowee ma fajala AVC. waaw man maa ko wax. di nga am test bu gaaw nii sax yow man maa lay testé rek. testé ma léegi fii ma toog Jojo daw ma leen ndax li may def dama ko <laughs> mën li may mhm. ok jamono juñ toll nii doy na waar. Mhm. ndax sëriñ si bari nañ fi. Mhm. ñi ñuy yóbbu vaar bari na fi. ñiy def révélation muy tombe di nekk tey dëggu bari na fi. di nga def ay révélation maanaam yow di nga mën a wax tey ñin ñi lii mooy am mois prochain wala lii mooy am année bi di ñëw wala làmb ji wala làmb ji parce que man ci li ma li ma dégg ci jinne jinne fàtte na li xew démb mm-hmm. waaye xam na la muy def suba bien sûr comme nit nu mu xamulee la muy def suba waaye xam na la mu def démb contraire bi la mm-hmm. bu fekkee da ngaa ànd ak jinne joo xam da bëgg lool muy sa deuxième xaw ma sa première jëkkër mooy première mooy première mooy première waaw kon la déedéet moom laa njëkk jinne ji ñu ko moom xam na ko waa ah man de sama émission bi ko ne dina fi ñëw mhm. barki rasulaay kii de <laughs> wax léegi mhm. mën nga ma yow mën nga def li nga def ay révélation bu baax dama koy def 2012 euh, deuxième Macky Sall bi mu jël deuxième mandat man rek ci seetkat seul ñëpp may déglu man maa ne Macky Sall day jël deuxième mandat te coow du jibal du tàkk te kenn du sañ a wax bi ma ko defee bi émi kii bi jàllee sama kër daa fees dell uh-huh. benn seetkat ñemewu ko 2012 man maa toog ne Macky Sall mooy jël deuxième mandat. te bu ko jëlee coow di jëm ñëpp naan dëkk bi day tàkk man leen dëkk bi du tàkk dara du yëngu bal du tàkk ko fetel du jóg. non 2012 moo doon premier mandat bi. deuxième mandat bi laa wax. 2012. ma deuxième euh, est-ce que du 2000. waaw beneen bi 2012 la woon après ak 2000. 2012. Mhm. waaw mu def mu def mu def sept ans. Mhm. waaw ba 2019. 2019. boobu la wala 2012 ba la. 2019 bi mooy deuxième mandat bi 2019 ak 2000. 2019 bi la 2019 bi 2019 yow yaa taxaw ne ma koy gagné waat. ma ah, am na ñu ma ci woo sax ba sollicité ma am na ma ci jox jamono jooju am na doole. waaw loolu man mi sax sañoon naa taxaw ne ma koy gagné dafa mel ni Sénégal buy football. mais non Sénégal buy football ak <laughs> euh, buy football ak euh, euh, Mauritanie damay taxaw ne Sénégal day gagné Mauritanie. non demeewul noonu ndax ñëpp a toogoon ne Macky Sall day wàcc ndax boobu nit ñi mere nañ ko nag. te ñëpp dañ doon jéema a xeex sëriñ sëpp génne Macky Sall day daanu man leen du daanu waaw coow li bëri woon na wax waaw waaw coow li dafa bëri woon pëccëxoo man leen Macky Sall du mës a daanu deuxième mandat moo koy jël mais troisième mandat gisuma ko ci moom aha déedéet laa doom jëm de waaw loo ci xam gisuma ko gisuma ko xool nga gaay déye nañ la déye nañ ma gisuma ko <laughs> nee nañ la Macky du dem du gagné troisième mandat wala dina dem gisuma ko du dem day dem mais du day dem <laughs> gisuma ko ah non non non bu ragal wax ji dañuy waxtaan day dem mais gisuma mu gagné ko ah day dem mais gisuma mu gagné troisième mandat gisuma ko. day dem troisième manda waaw day dem waaye dañ koy gagné. waaw waaw. soxna Mariama si taaliba sëñ Babacar si. Mhm. booy jëlal caméra bi nga goro plaal ma kii. <laughs> révélation bi soxna Mariama defal ma fii dina leer nañ. bu baax Mariama nga ne lan nga xalaat troisième mandat Macky Sall bi. troisième mandat bi dina metti dina tarta dina poser candidature mais Macky Sall du gagné troisième mandat. waaw bu neexee yàlla. deux mille deux mille vingt deux mille lan la. vingt quatre yàggatul bu paasee nga invité waat ma ma ñëw wax la maa ko waxoon sàcc baa ngi ragal du ko wax. Hmm? ah waa mais tey ku ñi fi ñëw taxaw naan ay gis na ñetti kees. ñett mooy troisième mandat lan nga mën a wax ci loolu waxul dëgg. non non waxul dëgg ku ko wax waxul dëgg ay dóor la. ah waaw. Selbé moo toog fii nga toog. mu ne moom gis na ñetti kees. <laughs> Mhm. yu yu nekk ci diggante loxo Macky Sall ak Marème Faye Sall léegi yow nga ne loolu dëgg loolu du dëgg Selbé loolu bu ko waxee buzz lay wut mais Selbé waxul dëgg maa ko wax Selbé Ndom waxul dëgg Macky du am troisième mandat émission baa ngi neex nag déedéet Macky koy jëlee waa léegi kan kan nga gis mooy doon donc après Macky Sall yow yow kan nga xalaat ba ci xam-xam wala ci nit nii kan nga xalaat ne mooy war a mën man daal Sonko daal nee naa ko na takku ba dëgër te xam ne dina bari ay adversaire dina bari ay adversaire dina ko bari ah kon gisoo sax Sonko yow. ma ne Sonko dina bari adversaire après loolu dinañ ci wax mais dina bari adversaire. bu baax. ça c'est sûr dina bari adversaire moom loolu moom c'est sûr. dina bari après su jege see damay ñëwaat. fii ah. <laughs> ñam naa ko mu neex amul fenn damay ñëwaat. <laughs> da ñëwaat fii wax ma. damay ñëwaat ne ma diwee falu. damay ñëwaat maa ngi ñëw fii wax la ko 2024 ndegam neex na yàlla yàggatul. d'accord d'accord d'accord jërëjëf léegi à part loolu xam nga tey. yéen da ngeen war a stabiliser réew dalal réew man gëw ma génn naan Sénégal accident dina fi am feek un mois damaa gëm nga ni ma accident dina am feek un mois sarax bi lii la na ko ñëpp def ba accident bi du am gëw ma ku naan deret dina tuuru ay xale dina dee nangam sàngam boo ko waxee jëlal ko euh, la koy defar nga ne sarax bi lii la lii la bas ba xale duñ mën a duñ duñ mën a kii Sénégal yow fu ñu toll nii fii ak un an fii ak deux ans fan la nar a jëm ak yan sarax la Sénégalais war di utiliser constamment pour jàmm mën a am ci réew mi. ndeysaan jërëjëfati sang bi da nga ñëw ci lu am solo. Hmm. xam nga tey jii bu ma ne dañuy génn oto day këppo yaa ngi xalaat sa njaboot. Mm. keneen a xalaat njabootam kon loolu du wax ndax règle boo gis am na exception da ngay xool lii mooy saafara li nga ne ko lii kat dina am mais defal li nga wax mhm. mais at yi ñuy ñëw dañ doon wax deewu ndaw yi mais mag ñi fi ñu toll ñooy dem waaw te lool sant yàlla mag ñee ngi dem nag waaw atum mag ñi la kon waaw waaw waaw kon nag ñi doon wax ne ndaw yaa ngi dem kon nee naa réer nañu ndax mag ñee dem fi ñu toll ni fi ñu toll boo xoolee dëj yi am yëpp mag lay doon 80 ans 90 jàpp 100 loolu sax baax na waaw baax na ndaxte wax dëgg fa ne yàlla ndaw mooy yor réew mm. mais at mii di ñëw maanaam lu tàng dina am mais comme li nga wax dañuy génne ay sarax rek. lu tàngali la maanaam lan la. Euh, lu tàngali ci diggante Sonko ak Macky Sall. dina tàng moom. dina tàng jër nag dina tàng jër jër jër te ñoom seen i njaboot duñ ko fekkee ñun baadoo lay ñoo fi nar a toog nag nar koo dund ak ñoom mais ku mën a génnee sarax suukar nga génnee ko. suukar un kilo suukar kilo sel un kilo euh, mil dugub. dugub ne ñëpp génnee suñ ko génnee ñëpp am jàmm ndax bu safaan di ñëw yow am nga droit aar say njaboot aar sa bopp. Hmm. Hmm. aar sa njaboot aar sa bopp. defal nga ma révélation bu rëy. waaw ndax looloo ñu fi tax toog ay sénégalais lañu. zone wallaahi ndeysaan. Hmm. nga ne kon fii ay jamono. Hmm. Sénégal nar naa tàng. bu baax waaye ngir mu bañ a tàng. nañu génn sarax suukar. kilo suukar. kilo xorom. ak kilo dugub. ñu sarax ko n'importe qui. ko jot jot jox ko mais bu mu doon sa njaboot te bu mu doon sa waa kër. d'accord war a dundal waroo koo sarax. est làmb ji di ci faral di wax. dama ciy wax bu baax. pan combat nekk nii sax ci diggante bi combat bu rëy nga wax ma. ban combat da ama roi des arènes bi. mi ngi ci bopp Modou Lo. ak Boy Niang taxaw na. lan nga gis ci loolu. booy ah, Boy moom fi mu toll dafa taxaw. Modou na takkaat ngembam. Ah, ah. entourage am baaxul. na takkaat ngeen bam entourage am baaxul ndax fi mu toll nii booy ñaar daa téye bës bi déjà. waaw te téye na bës bi moom. da koo téye da koo poñe te itam mu droit des arènes mu ngi koy xeeñ. ñu ngi koy. mu koy xeeñ ci kaw mu jóg ci boppam nag. Mm-hmm. mu ngi koy xeeñ mais bu mu naagu. <laughs> Mm-hmm, mm-hmm, bu mu naagu. <laughs> looy xool lii sa ket kon lan ngay xool lan. <laughs> aywa ah, wax leen ma ñaata temps laa defagum wax leen ma ñaar temps laa defagum man sama gan gii <laughs> dafa mel daa am loo loo xool ni dafa am ku ku lay wax. non sama waa ji la xam nga fu ñu dem ñooy ànd. a ah, nekkul na rek la rek de. <laughs> ah non <laughs> nag ne ko gaynde la man maa gaynde xam nga gine ñamul gaynde mhm. ne man gaynde laa. gaynde nga moom waaw kay mais dama ni. wax ma lu leer yow da nga gis booy ñaa da nga ko gis wala da nga ko ci analyse rek nga ko teg parce que tey. li nga wax ni yomb na. man mën naa taxaw tey ma ne non booy ñaa dina nekk roi des arènes. naa taxaw non mais loolu ci ci waxtaan la quoi. waaw mën naa taxaw ma ne Modou Lo day ñu bëri. Sénégalais naan Modou Lo gëmatul làmb dernier combat mi ngi nii koy wax mën ko jàppee foofu. mais yow xam-xam nga teg ci li ngay wax wala analyse en général comme ni ko ñëpp di analyser la rek wala xam-xam la. non zo xam-xam laay wax Mm. ndaxte lu ma toog gis ko laa te xam nga Sénégal tey ñoom. Mm-hmm. boo xasee ba yëg se bu la nit di wax doo ko dégg te fekk lim lay wax xëy na boo ko dégloo dina la jariñ baa mu jariñ sa bopp mais Modou Lo man mooy sama supporter. mooy sa mbër mooy sama mbër. Mm-hmm. man supporteru Modou Lo la mm-hmm. dama ko bëgg mais fi mu toll wax dëgg fa ne yàlla làmb moom bu caaxaanee dootu ci dootu ci dootu ci prouvé ti dara. ah na. ah mu ngi jëm ci waaj a jeextal xam nga luy bëgg a jeex ak luy waaj a jeex ak lu jëm ci jeex bokkul mais mu ngi bëgg a jeexal jeexal Balla nag jeexal na. kan Balla. Ah. Balla moom <laughs> jeexal na daanaka moom. ci xam-xam wala ci ci lu ñu gis ci xam-xam laay wax loo xam ne dama ko dund. jo. waaw. est-ce que. donc benn ma dese. parce que waxtaan wi neex na. ah. tegu ma. ëmma seen. ëmma loo gis ci moom. <laughs> ëmm ak Balla war a bëre de. <laughs> ndeysaan euh, xaw ma ko woon fii laa ko xamee tey. ah xama woon combat boobu ne am na wala amul. wallaay xaw ma ko. d' accord xaw ma ko woon. Mhm. maintenant damay duggaat tuuti ci politique bi. Mhm. parce que waxtaan dafa neex lool. Mhm. Euh, Sonko. Aji Saaxo. coow li bëri na ñooñu lëmbe nañ réew mi de. te ba léegi lu ñu doon wax rek coow la fa amoon daaw ba léegi xamaguñ verdict ñii ngi naan lii ñii ngi naan laa Sonko dana dem kaso wala du dem kaso Sonko ak bay ñaaw Niang wala yow da ngaa gis Sonko ci pale ba wala Sonko ci rëbës yow fan nga gis Sonko yow mii gis lu ñëwagul te yàlla may la ko. jërëjëfati da nga ñëw ci question boo xamante ndax Sonko mu ngi ci danger te it waa gouvernement bi ñu ngi wut nu ñu koy pëttaxalee pour dugal ko kaso Sonko bu amul sens faaw mu ñam kaso. bu fekkente ne day xëcc pouvoir bi faaw mu dugg kaso génnaat. yàlla may ko duggul kaso bi mënul am victoire. jo bu fekkee benn fan sax dina ko dugg rëbës. Hmm? Mhm. ndax liñ ko def la deretu nit lañ jël. non boo xam ne bu dugg rëbës moom mënut a nekk 2024 président parce que li dal Karim Wade da ko dara dal koon. non day ñam génnaat de waaye de fi mu toll liñ koy pexeel Sonko dina ñam kaso dañ ko am luñ koy pexeel dañuy togg togg boo xam ne ñoragul moo tax mënaguñ koo yàq waaye bis bu ñoree Sonko day ñam kaso mais du fa yàgg. du fa yàgg. non non du fa yàgg dugg génnaat rek du yàgg. dañ koy pexeel nga wax. dañ koy pexeel waaw. léegi euh, euh, dafa war a lan la war a def rey dareet nga wax. Hmm? dafa war a rey wala. non dama ne dañoo jël deretu nit. dañu jël. deretu nit xaatimee ko bagage yi Sonko moo tax faaw mu ñam kaso. deretu nit. deretu nit. ay waay Sénégal nguur daf leen jaral lu ne. d'accord soxna Mariama kontaan naa. jàmbaar nga góor baax na jigéen baax na boo fi jógee nii léegi beneen gan gu mag laa am jigéen na yow lii dafa baax ñaari loxo mooy takk ceinture waaye ñaari loxoy takk sër jigéen yàgg naa jàmbaar dañuy doog a jël jigéen ñi rek léegi di leen def ci armée bi wala di leen def ci ci ci ci ci ci ci euh, assemblée yi wala ci nguur yi waaye jigéen yàgg naa nekk armée mm-hmm. yàgg naa nekk assemblée yàgg naa nekk nguur mm-hmm. kajoor gii tey bu àggee fi mu àgg tey jigéen bokk na ci mm-hmm. yaasin buubu keroog ba maajoor waree falu buur yaasin buuboo ko fal ndax moo nangoo yoole boppam ngir maajoor falu kooku jàmbaar la Aline Sitoé Diatta la reine de la Casamance la Casa di Mansa jigéenu ndeer ya bañ leen naree toroxal la la ñu def daal seen bopp kon nag jot na tey jigéen ñi fees dell seen place li nga def nii bu njëkk ba jigéen sax ñu ko woon am sama xam-xam toog ci télé di ko wax ah na ngeen delloo njukkal Selbé nag parce que bokk na ci ñu ko njëkk def nag bokk na ci ñu njëkk a génn nag ci télé bi di wax ci jigéen kon tey boo doonee jigéen ñu nekk ci 8 mars nga ñëw toog ci émission bu mel nii di wax xam-xam goo xam ni góor bu fi tegoon tey du ko dindi gàcce ngalaa ma yéen pour ñu tëj 8 mars la ñu nekk mois de mars lan nga ma mën a wax ci jigéen ñi taxawaayu jigéen ci réew mi lan nga ci gis <laughs> ci xam-xam ak ci ak ci normal <laughs> jërëjëf sama soppe laa lay woowee ndax li may wax maa la bëgg te daw ma ci lenn euh, zo jigéen yàgg na doon jàmbaar Euh, jigéen yàgg na doon doon koo xam ne kilifa kilifa la. Mhm. mais à chaque fois culture Sénégal jigéen maanaam ca ginnaaw la ñuy wax. dëgg la ndaxte dañ naan góor jiitu jigéen topp mais defe loolu wa jeex na fi de. Mhm. ndax fu góor di taxaw di prouver di def chiffre d'affaires di def ay résultat jigéen ñaa ngi koy def surtout milieu bi ñu nekk. Mhm. métier bi ñu nekk yenn saa yi da ngay nekk góor mu nattu sa xam-xam. waaye yenn nga laal jigéen joo xam ne boo ko laalee laal laalaake laal laalaake ndax ñun ñii xëy na yàlla moo def jigéen ñi faj léegi am nañ fitu génn am nañ sañ-sañu génn bu njëkk ba amuñu woon sañ-sañu génn ndax li tax da nga daan am complexe ne seetkat la mbala sa âge boo ko nattee ak li ngay faj am na ñoo xamante ne dañ ñaan léegi sëriñ si kaay ma wax la leen jigéen ñay prouvé di def résultat mhm. ndax dañoo ragal dem ci góor ñi nag ma wax la ragal dem ci sëriñ si góor si ndax jigéen ñi nga ma di fa dem sax mooy loolu kon nag na jigéen ñi gën a takku mhm. bokk ndey bokk baay euh, di prouvé di def résultat man dama soxla résultat zo Mm. liggéey bi boo ci nekkee faaw ngay wane résultat mooy tax nit ñi gëm la mooy tax ñu naw la mooy tax ñu respecté la dëgg ndax nit ki li muy def ba ñu koy respecté moo koy def mais nit li ngay def ba ñu xeeb la yow yaa koy def ndax tey jii mën nga jël encaissé sa benn 100000 ne encaissé naa 100000 dem tëdd ne la doo seetal nit ñi doo jo wane résultat mm. bu subaa doo too ko yi moo mën a yëkkati nit ba mu jóg moo mën a daaneel kon jigéen ñi nañ takkuwaat fu góor di taxaw jigéen dafay taxaw te day prouver day wane résultat kon nag ñu mel ne yow yaa ñu dooleel yaa ñu kattanal bañ am fitu tey toog di wax ñëpp di ñuy xool te duñu piis wallaahi mais soo waxoon jigéen laa ni damay faj dañ lay xeeb wala ñu ne kii est-ce que mën na ak sa at hmm. mais yàlla maye na lépp nag wallaahi na ñëpp xam ne yàlla amul lu mu bàyyi mm-hmm. lépp yàlla nattoon na ko te yàlla waxoon ne jamono ñëw jigéen ñiy faj goon ñi dem toogi da mooy jamono ji jigéen ñi ñu ngi faj ci lañ toll nii waaw jigéen ñaa ngi faj ñu ngi wane résultat jërëjëf jërëjëfati so say kàddu leer na mm-hmm. na nga sant amaana am na lu yàlla def ci yow waaye euh, say waajur aussi yar nañ la siraatul mustaqim communication ci éducation nit la nit boo amee éducation bu bon sa communication du baax mukk waaye boo amee éducation bu baax foo taxawee wax dañ naan daa jàng communication ndax man damaa compliqué man convaincre ma yombul te lii ngay wax ni lenn lu ma fi convaincre dama naan la lii nga wax ni convaincre ma parce que wax naa la ko léegi neexaloo ma saxaloo ma lam ay millions waaye sant yàlla mën na am de boo fi jógee di nga yokk waaye gën ngaa dooleel tamit émission bi dana tax ñeneen dina ñame ñëw ndax ndax na nga waxee kon nag jërëjëf waaye nag li ma gën a ëppal solo dama koy wax toujours man aw ma jot damaa bëri liggéey bëgguma soo génnee fii suba ñu may woo Jojo soxna Mariama numéro am Jojo soxna ma déedéet yow yaay joxe numéro boo xam ne ca lañ lay jot yow numéro boo xam ne ku la woo wax ak yow loolu sama sag lay doon man bu fekkee boo fi génnee ku la woo du la jot wala boo fi génnee seetal nit la ko seetal gisu ko mbaa nga faj nit nangam man laa jo ka ma invité woon kon maa leen lor dëgg la bu boobaa di nga ma amal àq rek te man ko ma amal àq ko ne de doon da nga koy rëccu de dëgg la kon nag joxel numéro bu wóor. Mhm. numéro bu leer. Mhm. ñun ñu mën la faa fekk. Mhm. dëgg la so dañuy sant yàlla di julli si Seydina Mohamed. ak adresse bu ñu lay fekk. dañuy sant yàlla di julli si Seydina Mohamed ndaxte nee naa yàgg ci liggéey nekk ci liggéey mën la ngay def ak gën. ndaxte am na lu ñu yàlla may te du ñu passé borne bi nga xam ne fa la ñu a yam ndax fu nekk rek dañ fa am limite te parce que Dakar fii rëy na mais amuñu fi sens interdit de. Hmm. fu ñu neex jaar lekk ñu dërëmu kenn tëdd di nelaw. Hmm. lekk ñu cent franc kenn te bu ñu toogee fii. Hmm. bu leen neexee nañu commentaire ndax li ñuy def dañ ko mën ta ñeme ko xam bu baax fañ jëm xam bu baax fañ bëgg a yegg ndax pareeguñu zoo. ndax li ngay jàngee. noonu ngay jàngee xam-xam te di gën a jàng gën a mën a yaatal suñu xam-xam kon ñu ngi sant yàlla numéro bi 060 43 10. 77 wala 78. 77. 77. 060. waaw 43 10. 43 10. waaw beneen bi mooy 78. 78. 419. 419 41 419 41. 41 98. 98 waaw. ku ci woo yow lay jot. ku ci woo man ngay jot mbaa nga jot sama assistante rek. Euh, mais boo ko jotee dina yeggale yóbbante. adresse bi fan la ne mbaa neewoo Tamba wala Vélingara. déedéet ñaari adresse la am. Hmm. benn bi ñetti adresse la sax benn bi cité Bissab la. beneen bi maa ngi Castor pharmacie Front de Terre. waaw beneen bi maa ngi Dias. Dias cité moo ne euh, nekk benn tali. benn tali cité bisaab. waaw benn tali daa bisaab. daa bi Dias. waaw beneen bi Castor ca aéroport ba. waaw ca aéroport ba beneen bi Castor ci booru bi. jërëjëf soxna Mariama tàggool mhm. jërëjëf zo dañuy sant yàlla bu baax a baax mhm. di julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaxte émission bi ñun seetkat yi ñun sëriñ si euh, ñun ñi nga xam ne bëgg nañ lu baax yàggoon nañ koo bëgg mi amuñu woon kuñ koy defal ndeysaan kon suñu jàkkaarloog sa jëmm ji mhm. nga ñu koy defal da ñoo dimbali ndaxte ki bëgg a wax tax xamul fan la war a waxee mbala xamul nan la war a waxee émission bi bi ma seetaanee nga ñu koy invité oustaz Modou Fall dama kontaan ndeysaan dëgg la ndax keroog da ngeen wax jam ñu ñun seetkat yi da ngeen ñoo ñaax tamit. ah ngeen ñoo ñaax. Mm-hmm. ndax lan mooy ñaax da nga commencé sa émission ni ko bu la neexee ma continuer tey émission bu la neexee ma dagg ko mun la bul koo dagg. waaw ndaxte am na ñoo xamante ñun dañuy faj. dëgg la nit day feebar ñu la defal li nga def ko wér. kon yow yaa ngi dimbali askanu Sénégal mm-hmm. yaa ngi jàppale doomi aadama yi ndax zo nit ñi dañoo réer nag te xamatuñu numéro bu baax bi te xamatuñu kan la ñu war a woo kër yu baax yi kon nag yow yaa ngi def loo xamante ne yal na la yàlla fay amiin li ngay def nag xeet nga ko mm-hmm. mais barki sëy dinaa Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yàlla dina la fay ba nga yëg ne yàlla dina la fay xoola diggante ren mars ba mars biir ñëw nga xool lan nga yëg ci sa bopp zo barki alxuraan di nga yegg na yoon di yegg na yoon yàlla def na cat seexlu la yàlla jàppale la yàggal la fi soo buñ fa jógee nu ñuy sant suñu sëriñ sëñ Mbaye Sy sëñ Mbaye Sy Mansour mooy suñu xalifa général eh, ziar bi kañ la ziar bi la douze la ah, te ñoom la ñuy waajal bu ñu fi jógee dañu am kër Tiwaawan dañ koy tijji ji de ndax loolu lañu sëñ Babacar sant mm-hmm. waaw nee na ziar général am bii am nga kër Tiwaawan am naa fa kër ci liggéey bii ci liggéey soo liggéey bi am naa ci teraanga bu ne nga ci liggéey bii sant naa ci yàlla bu baax kër gee ca jas maa ko moom fa kasoor maa ko moom kon nag zoo amatul lu may daw dëgg la sant naa yàlla te liggéey bii nag sama waa ji jàppale na ma te teral na ma sëñ Babacar Si ndeysaan kon nag zo dañuy sant yàlla di ah, dégg naa boo ko woowee dëgg mu ñëw de ah sëñ ñoogu faama la douze na ñëpp dem Tiwaawan ah? oustaz Modou Fall nee na bal bi la douze day tàkk kon na ñëpp daw dem wutali Tiwaawan ndax sama waa ji sama waa ji na mat waay hmm? maam Babacar mat na waay kon nag zo le 12 na la fekk Tiwaawan. incha allah yaa ma maa la invité dinaa ñëw. Euh, may sant nag sa caméraman yi. waaw ndax ànd naag dal bu ma fi ñëw ñu may xool damay daw de. <laughs> ah de <laughs> yow <laughs> maa ngi leen di sant maa sant borom kër gi Ndiaga Ndour. Ndiaga mm, di koy ñaanal jàmm di koy ñaanal xéewal yal na jàmmam yokk. ku baax la Ndiaga ndax lii buñ ko amee ba di koy def rek xëy na moo la jàppale. wallaay moom la moom lépp moom la kon nag yal na yàlla defal leen jàmm yàlla dàqal leen saytaan yi yàlla musal leen ci cat yàlla ngeen yegg ba mel yoon zo kër gi nag borom kër ga ki ne ci waaw kooku moom wax dëgg fa neex yàlla moom lépp moom la. waaw ndax bu dul moom. Mhm. du ma yor bébéem. mu may bàyyi may ñëw te bi ma ko waxee yow mu ne ma sa soppe kon moom ngay fekki kon moom xam na sama diggante ma ak ah, yow alhamdulilah xëy na la bëgg moom mooy ñaareel moom moom mooy ñaareel kan waaw Moustapha Dieye mooy ñaareel sëñ ah, Moustapha aaw bi nag doo ko gërëm non aaw bi moom son yi bu la tudd moom moom ah! moom la waaw jinne ji barki rasulilah son yi bu la tudd barki alquran jullit la moo tax man la ay sijaada ak ay jeesne rek mbasin laa te loolu la may imposer bu ma koy def am. jàmm soo yibu waaw. jullit la. barke rasulilaay. jërëjëf soxna Mariama. a <laughs> ah, kon Sénégal lii jar naa sant yàlla. am ñu mel nii Saliou yaa ngi wax sama noppee dégguma la. am ñu mel ni ci réew mi sag la ci ñun. lii rek mooy concept émission bi. fu ci waay mënta nekk te yor sax xam-xam. war a mën a jëriñ sénégalais yi dañ la loqarte andi la nga toog fii doomu aadama li yàlla sàkk lu ne doomu aadama la ci gën a fonk kon tey man yàlla bu mu mayee kàttan may ma xel ba jox ma émission bu mel ni ma mën ci jaamu soxla doomu aadama yi dama naan alhamdulilahi rabil alamin soxna Mariama merci sa kàddu rafet na say wax leer na jub na tegu na ci siraatal mustaqim sell na lépp nag lu nga xam ne wax naa ko fi man te juum ngeen jéggal ma ndax doomu aadama kese la lépp lu ma fi jubit lu fi jubit na ngeen xam ne sunu borom la seen émission Jojo et ses Mara ba beneen yoon incha allah